topp 24actu euh, point com euh, ñu ngi fii ci euh, la nuit du Ndiambour fas yéene rek continuer ni nga xam ne noonu ngeen gisee ci kaw scène bi gars yi nekk fii di défilé waaye tamit gan ñi ñu ngi tàmbali di ñëw waaye nag dama nekk koo xam ne yaakaar naa kenn dootu ko présenté àdduna muy Makhoudia Makhoudia avant tout ah Makhoudia fi nga génn nooy nag Alaaji Ousseynou maa ngi lay nuyu di la jaajëfal waaw bara Bamba moo ko waral sama xarit ok moo waral moo tax cuxaaxaa rek fël-fëlaale sànneeku ah bii boo muy dul dinaa ko nangu ci yow waaw li mooy cuxaaxaa ah. modèle bu bees la waaw ah, li mooy cuxaaxaa waaw xam nga dama ci ay grand boubou petit grand boubou ñëpp li ma imité ma ne xaaral ma def fël-fëlaale rek ci état euh, noo gisee la nuit du Ndiambour waaw la nuit du Ndiambour moom dama ñëw pour jàppale sama doomu ndey Bamba hmm. parce que yaakaar naa ne moom sama xarit la sama doomu ndey la ba pare seen waa kër ñëpp bëgg ma xalifa di nekk sama xarit xames mbay bin bin su ma limee damay juum ñu nekk sama xarit bëgg ma yaakaar naa ne bu ñu xewlee dafa war a chaque nuit de ñaambur hmm. dama fiy ñëw chaque nuit de ñaambur dama ñëw jàpp ci dooleel ko parce que aw ma xaalis bu ma ko jox mais am naa sama image ba pare sama tànk man maa ko moom ma yéene ko ko ñëw ci nuit de ñaambur mel ne am na lu rëy looy préparé ci kanam tuddi ci kaw waaw am na lu ma préparé ànd ak sama xarit sama doomu lay caat waaw xale neex tànk caat wàccaat lu bees. waaw maa leen di ziar. waaw delloo ziar jox seen wàccuwaay wér. Mm, waaw tey moom suñu ñëw teew Louga daal. Bamba moo ko waral. Bamba Fall baax lool. Mm. waaw boo euh, ko xalifa. ok ndeysaan mu téye woon fi sama rakk rek muy Pa Idi. baax lool. waaw bëgguñu torop. dëgg yàlla ku mel ne Xaadim Thiam Bamba daal. Mm. tey nii de ñaambur ñëw ànd coxal xaanak ok ah. tey tey dinañ tëb ba ca kaw de. non waxuma la tëb ba ci kaw waaye dañuy akara bat përiye naaw. Bamba jar na ko nag ak Cuxaaxa. ak Cuxaaxa gisoo ni mu def. ah Cuxaaxa euh, ana Pape Diouf. Pape Diouf moo ngi fa Pape Diouf moo ngi fa naroon naa ñëw nag mais xam nga bagage yi yaa ma gën a xam. ok na ma rek ñëw naa. ñëw nga mais nag. man damaa bëgg a xam li ngay waajal. li may waajal moom surprise laa la ko defal ay cuxaaxaa. ay jadi jadi. jadi jadi ay curki curki. ay bajji bajji. ay yugur yugur. yugur yugur waaw baax na loolu ci kanam la doon ma xuja ah kon ma jox la nga waaw waaw waaw noonu lay demee noonu lay demee tey dara du yomb. dara du yomb dinañ cuqaaxaat nañ jadi jadi dinañ turki turki. dinañ fel felaale. am benn fecc bu bees nag bu ma tuddee. sama xarit sama doomu ndey. muy laas doomu ndey Bamba. laas doomu bi moom laa ko tuddee laas. kon ñu sama xarit lañ koy découvrir fii lañ koy jëkk a gisee. fii lañ koy njëkk a gisee laas. laas laas laas. waxal laas. laas xam laas mooy jeex na. jeex na jeex na kon laas nga ci kanam. voilà ñu ngi leen di sant bu baax euh, di leen gërëm mu nekk ay euh, naanaan yoo xam ne kenn dootu leen euh, kenn dootu leen laajte euh, ci Sénégal ci liggéey bi nga xam ne euh, moom la ñuy def muy Makhoudia di feccal Pape Diouf ci liggéey bu solo bi nga xam ne itam moom lay def ci la nuit di Ndiambour.